li ci mbër yi di lekk moo ci gën a tuuti wax dëgg yàlla ba pare gis nga làmb su ma jëloon dëkk bi nekk fi président dinaa xoolaat làmb bu baax idali parce que làmb booy seet li nekk si tribune bi rek fayul benn mbër bi xaalis bi fan lañ koy jëlee ko yaa ngi dégg est ce que nekk ñu làqatu ci ginnaaw mbër yi di def li ñuy def mais mbër yooyu tamit segam yow ñi ngi ñëw ba nga mën leen a présenter di am xaalis ci ñoom di ci tuddee nit ay drapo mu lay jox xaalis ak yooyu mbër yooyu tamit dañ leen a mën a mettre en valeur Siteu nag mbër la boo xam ne mbër bu am relance la Papa Sow mbër bu gaaw la seen bëre nag méngoowul bëre yi méngoowul c'est que Siteu su fekkee dafa bëre li mu bëree Zarko bër gis naa ñu naan ko bëree li nga li nga bëree Zarko bëree ko Siteu bëree ko Papa Sow ak Zarko bokkuñu bokkul de bokkuñu bëree papa dafa nekk ku day waar day carax-carax quoi curuxu curuxu lay def yaa ngi dégg mais dama gis euh, père Max ma mu wax wax boo xam ne su ma sañoon du waxee noonu gis naa Pape Sarr aussi mu def ko mu ne Siteu bu ko Papa Sow daanee bu yaboo mu bàyyi làmb loolu du wax gis nañ fi mbër boo xam ne tegale na lu mat wit defet te tey jii kenn mënu koo daan làmb du noonu bañ nañ ko bañ ne làmb Siteu xale la demagul fenn ci làmb yaa ngi dégg communication ba boo ko waxee ba dugal ko si bopp nit ñi mais yaa ngi faagaagal mbër mi te yëgoo ko du dëgg gis naa Pape Sarr aussi mu ne eh, Boy Niang bu la Balla Gaye jaaral si armeelu Pikine yi nga ray fa sa bopp loolu kuy ànd ak mbër du ko wax loolu ñun yàgg nañ ànd ak mbër donc waaw encouragé ko rek yow nga bàyyi ko mu dem parce que làmb làmb la rek ki muy bëreel ak moom miy bëree yëpp Sénégal la yem ndam li génnul Sénégal mais bul dugal ci bopp xanaa am loolu léeg-léeg nit ki bëgg a wax fekk la muy wax du noonu da bu yàggee sax mu noppi woon moo gën ñaari façon communication yooyu daal naqari na ma ci làmb yooyu wax dëgg yàlla bëre bëre la rek wax dëgg yàlla Siteu xale la papasaw magam la yaa ngi dégg Siteu demagul fenn juddoogul sax ci xottum nen làmb a ngi si loxoom boobu ba léegi am na lu mu am lu ay moroomam yoo xam ni ñoom ñoo commencé ndoo ay moroomam amuñu ko daan na fi ay champion yaa ngi dégg mais làmb la même booy Niang ak Balla tamit làmb la rek mais bu bu ci dugal ay jaaral ci armeelu Pikine yi rey fa sa bopp bu dee Balla Gaye dalaa daan loolu du wax ji dañuy neexal nii di soob rek mais ñëpp Sénégal Sénégal la wax dëgg yàlla wax yooyu daal rafet ma ko ci wax dëgg yàlla waaw